internet yu Dakar Buzz jërëjëf bokk internet yu ba tey ginnaaw bi ñu leen toppal li nga xam ne moom gi ñu ngi fii ci golf kër Balla Gaye 2 ah, magi Sa Thiès ah, ah, rakki Lirou Diane baayu Serigne Saliou li lay wan ni Balla Gaye nit la ku rafet xool nit la ku yaatu ku yaatu dënn mooy bi ni ñëw woowuñu ko dañ koo bett mais ñu ngi fekk xale yi toog ci wetam te Omar xale du fréquenté ko bon koo gis xale yi sam ko rek te xamal nit ku baax la Serigne Saliou li tax nit ñi bëggoon ko mooy yërmande gi mu amoon ci xale yi moo tax Serigne Saliou tey jotaayu Balla Gaye bi daf may fàttali jotaayu euh, buñ ma saan fekk Serigne Saliou ca jurul xale yi wër ko ak dongo yi moo lay wan ne kon xale du fréquenté ko ban Omar nuyu naa la. ñu <laughs> bëgg maa ngi lay ziare. baam nga jàmm. waaw ah, maa ngi naa la baal naa la baal ma. waaw ñu bàyyi la nga balonteeg ak sénégalais lay seetaan dama laa bett nag tey woote wu ma. waaw Cheikh Ahmad maa ngi lay siyaar yow moom sama mbokk taalibe nga dëgg yàlla. tam bett moom mën na lu ne <laughs> maa ngi lay baalaax di la baalaax. mais xale yi ni ñu sam sa kaw nii tey mooy fàttali image bu doy waar boo xam ne damaa fekkoon sama sang sunu sang ba Serigne Saliou xale yi def nii kon bëgg nga bëgg Serigne Saliou lii moo koy firndeel. waaw waaw xam nga ñun moom ay lépp li nga xamante ne rek wax dëgg yàlla xam sax la muy sax moom ay ñaan daw na mënuñ fi da ngay lañ nag waaye kenn du Serigne Saliou ndax Serigne Saliou moom dëgg yàlla ku ko bëgg tuddee ko doom daanaka sa cofeel moom leer na nañ waaye maa ngi lay balaax àq tamit di la balaax àq di la ñaanal jàmm foo ndax euh, social yi ngay def nit ñi di ko gis di jàppale doomu aadama yi vraiment ñoo ngi koy rafetlu Sénégal yëpp nga rafetlu nit ku sonn nga dimbali ko nit ku am problème nga dem dox sa yite yàlla na la suñu borom fay tiyaaba boobu ak say mbokk ak say am du jàmm waaw loolu moom vraiment pour seedeel la ko rek te xamal na la askanu Sénégal ñëpp ñu kontaan ci sa liggéey bu façon boobu yemoo ci làmb rek ndax làmb dëgg la métier la waaye la nga di ko defaat ah xeeb mi la ko yàlla joxloo nag yàlla nga ci sax li ba tax na lépp loo ci bëgg rek suñu borom defal la ko ñaan kooku man personnellement maa la ko ñaanal yow da ngaa baax rek waaye social moo def ci kaw yaa ngi koy def ci suuf te bëggoon nit ñi wax ko parce que yàlla moom moo ma seede waaye bér na ma ni lu ma jëf ci kaw jëf ko ci suuf tey bala sa digganteeg social fa fa laay ubbi waxtaan tey sa digganteeg social booy jëf te bëggoon nit ñi di ko wax waaw mais àdduna noonu la am nga àdduna moom ànd ah, ak it yi taxaw ngay joxe wala caméra yi taxaw ngay man moom bokkuma ci xeet googu. waaw ah, man mi doon yàlla dogal na démb bay léegi ay la maa ngi tëdd ay 5 heures du matin dama doon wër ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw damay bett rek ñëw def li may def dem def def loolu waaye ah, man daal loolu laa ci solo am ci yàlla am ci yonent bi moo ci am solo te yàlla nañ ko yàlla may te yàlla buñ ci gis suñu bopp te yàlla buñ ci mos a gis suñu bopp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla jàmm Sénégal ci biir réew mi. amiin Balla kóoru doon nga woor ma daggal foofu doon nga woor. waaw waaw damay woor ndax kilifa laa nag. damay kat sa kanam bi daa yërëmtaluwul tamit ñi ma gis ñuy woo ñoom dañoo yërëmtalu seen kanam yi dem mel ni Omar wala wala Birame Diouf mais ma gis macha allah daal ah man daal wala façon woor wala wóoru mbër daaw. non damay woor wax dëgg yàlla damay woor di ko jullit di defee ak doomu jullit moo di ko defee noonu. Mhm. waa di ñaan di di julli. loolu moo ci solo. vraiment jullee fii wala wala fala wala. fii mooy sama lépp <laughs> man fii waaw di baalu àq sama dëkkandoo yi golf ak rawatina waa Géejawaay ak supporteru Balla Gaye de yëpp. di baalu àq suma kilifa Abdou Aziz di ko ñaanal jàmm ak suma mag Malal Sakho ak Baye Ndiaye ah Ahmed Naar Baye Diop Talla Meng Modou Simon ah, ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di leen ñaanal jàmm ak salaam bu wér a wér a ba nga xamante ne. samay nit lañu samay am di jàmm lañu ak suma mag ak saa kees maa ngi koy nuyu en passage comme ren yàlla dafa dogal korte wu fii. mu ngi pari daw daw daw yoole bi. waa gis nga. <laughs> ñaa di jégalu suma yaay ak samay goro ak sama goro. donc vraiment maa ngi ñaanal jàmm ak salaam. waaw nan nga wax sa fans yi la bëgg. di la joo yoo jaral leen lu ne tey ñu seetaan la ci Dakar ba dan nga leen di baalu ak. waaw maa ngi leen di baalu ak. maa ngi leen baax Dakar ak Médoune <laughs> Médoune moom maa ngi koy béggee moom sama waay la. Médoune bu waaw waaw dafa leer <laughs> ma ko dafa leer. maa ngi siyaarawaat ñëpp rek. Mm-hmm. waa di sama nuyu sama am di jàmm yi fi teew yëpp. vraiment ak toogaay fii di bëgg xale yu ndaw yi. ñi nga xamante ne samay waay lañu. xale yi nga xamante ne Mouhamed la tudd ah. ah. <laughs> kii Mamadou kii Xaadim Rasul. ah kii Mamadou ñi fi tudd bëri na daal. muy seen rek fi nekk. yéen Balla Balla ngeen di topp. li bëri naan Balla Fadal la ñuy topp yéen Balla ngeen di topp. waaw Balla mais seen digganteeg Balla Gaye parce que da ngeen dafa ngeen ñëw mu ubbil leen yaatal leen ba ngeen am ñeme ko a toog waxtaan moom. moom kese ah? yor. daa baax. laay xaadim loo ñaanal loo ñaanal sa papa. mu daan mu daan mu Ah. duma seen. message wàcc na de te mooy borom jumaa ji moytu ma xale buy ñaan de eh? loolu daal nga bëgg ah. kase ah mais ban combat Balla moo la gën a neex ci combat papa yi sax ban combat papa la. moo la ah. gën a neex. tonton Saare ah? sama papa. kan sa combat sa yi mu bëre ban moo la ci gën a neex. sama papa. non ban ko mënoon na ban combat la sa papa bëree mu góor la gën a neex. Modou ak Gris Modou. ah. ne ko waaw merci. waaw ah, tey ñun wax tey wax ñu tam ñu gis euh, yaa ngi war a bëri ak Eumeu Sène te gis nañ affinité bi ci am xaritoo bi complexe bi rusante bi dem ba mënatu leen xoolante yéen ñaar te ngeen war a jàkkaar loolu nan ngay gérer loolu aussi. non du loolu de sekk bu ko gars yi foog nag ak li am bokkul ah. waa ah, parce que aussi tamit bon cër bi mooy lu normal et ñu nekk ci weeru koor tamit xam nga dafa am loo xamante ne mu jaadu ñu war a joxante cër respecté ama seen màkka la jógee dem char yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais mu ñu fa ñëw lenn lu wax waxu wax bu rafet moom dafa bërëb jaamu yàlla ba ñëw amul lenn wax boo xamante ne da ko war a yéene doomu aadama di ko wax man tam kazalika mais ama xam na ne moom am na combat ak Balla Gaye Balla Gaye xam na ne am na combat ak Eumeu Sène mu ne combat boo xamante ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar donc ñun mënuñu luul rek xaar koor gi jàll nag ah ñu doog a nekk ci mais xam nga ne Balla mel noonu ëm mel noonu mais ñu xaar nga génn wala fii nga bëgg a préparé non mun naa damay génn rek incha allah mais gaa ngi naan Balla INSEPS la war a dem INSEPS gaa yi dem faaw ñu dem faaw ñu dem INSEPS liggéey ah. waaw daa mel ne mer la fa naanoo de <laughs> waaw waaw waaw non nag ñu ngi kii rek mais xam nga faaw ñu dem liggéey parce que suñu supporters aussi tamit dañ leen amel àq quoi amel lañ leen àq amel leen ay bor xam nga rey sa bopp rek moo ko moo moo moo moo ma war quoi moo des si man nag vraiment waaw incha allah te comme faaw ma laaj ko parce que ku ne gis na la xew ngor ngay sénégalais nit ñi di la déglu ñu gis coow li am diggante état bi ak ak ñi nga xam ne ñoo population bu Ngor ci barab bi ñu bëgg a jël am lu ñu fa def ñoom d'accord ñi ngi sànnante lakkormaten ay sénégalais di ci gaañu yow sénégalais nga ban message ngay wax ñu dal xam lépp jàmm waxtaan lay mujj ban ban façon Ngor déggoo coow li bala foo nekk xanaa koor gi la jàmm yàlla xam ne yëguma ko nag on dit vrai billaahi yëguma ko Ngor dafa am benn barab bu ñu fa bëgg a jël am lu ñu fa bëgg a def ñoom d'accord ñu ngi manifesté ba démb ci heure bi doo doon ma la chromaté loo xam ne nooy naa ko mosuma ko nooy léegi ban message ngay wax xam ni jàmm rek la lañ fa bëgg a def ah, sant ñi ngi naan gendarme lañ fa bëgg a def ñi naan mairie yoo comprendre mais ñoom neen seen parking la boo xam ne ñoo ko koo jox état ñoom ñoo ko moom mais in na cool rek a ciyaay bi tawa ah na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def salaan ndax réew mi ñun ñoo ko bokk koo gaañi rek di ko seeti ndax ñëpp ay mbokk lañ ay xarit lañ ay wëla lañ nañu xool nu mu gën a rafetee rek te yenn maanaa rek ñu defee ko noonu. waaye nag aussi tamit état kenn du xëcc ak moom. waaye état tamit aussi laaj na maslaa. maslaa boobu ne leen ko yàlla may xol boobu. ñu mun a négocier tamit aussi population boobu nga xamante ne mooy Ngor. waxtaan nañ ci ñoom jàmm ak salaam. ñu trouver entente loo xamante ne wax dëgg yàlla dinañ juboo nga ndekkee wala michu wala xaar parce que man moom maag birun euh, danoo jënd macaroni rek def ci ñaari kilo euh, soble yooyu rek parce que xam nga Dakar waxul dëgg daanaka soble si yëpp sax dinaar yi yow tey nag xar nga def wala ginaar wala loo def korte gi non man laax laa def <laughs> <laughs> laax laa def laax. desali soow. non soow. soow <laughs> est-ce boole ñelaloo nii. non man soow laa def. Ah? <laughs> non soow laa def. et kan laa si ma wàll na bàyyi soow mi wulli wulli yaay laa leen soow. non laax mënut a ñàkk soow. wuli nee na bàyyi soo piir yi. waaw wuli waaw gis nga nee na bàyyi soo piir ma ne ko waaw naa ko bàyyi. daa neex ko de. waaw non soow moom dafa neex moom. ak ah. ak laax et puis ñun ñëpp moom lañ ah, mu julli bi moom yaakaar naa. nee na Balla dafa bëgg soow wax naa ko nañ tëj frigo bi bàyyi soow yi. non dafa may tooñ nga moom sama waay la ndeysaan maa ngi koy nuyu passage. ndeysaan ni ko baax la. kon ñu bàyyi la nga eggale ak xale yi jox leen seen ndewnal xale yi. ngeen ne Balla ngeen di di topp. Balla ngeen di topp. Balla ngeen di ñaanal. ban combat Balla moo leen gën a neex ci combat yi. Balla ngay Yékini. Balla ak Eumeu Sène. Balla kii. Balla wala gën a ban moo gën a neex ci combat baa yi. Balla ngay Modou Lo. ah. waaw mais dafa mel ni yéen ay wujju ngeen ko waaw la nu mu demee nii. Balla ngay Modou Lo. ah moo leen gën a neex. loo xam la mu neexee. Omar lii leen toppalee rek tey Euh, bu nu ñëwee rek xool ñi nga xam ne ay kilifa la nit ñi di leen bëggee ñu namm leen ku ne xam ne ne Balla Gaye dee ci koor gi kenn gisu ko mi ngi woon tëju ci ruxam di liggéey waaye gis nga korte ni ko xale yu wëree nii moo lay wan ni xool bu yaatu la yor xool bu xool ku rafet xool la dañuy dem ci beneen ndaanaan ci benn kër seet leen ki nga xam ne noonu lay dundee korite gi micro bi Fadal la cadre bi Omar la ak Médoune Diouf ñu dem beneen kër mais xale ak Balla yi ah maa ngi dem yàlla Diouf gis nga noonu Balla Gaye xale yi ñii ñaan si ndewnal Omar gis nga Balla gay de xale ñu ngi ñaan ndéwénal gis nga noonu noonu mais mënoo sax seen Balla ndax xale ñin ko samee muy loo xam ne gis ko nii ñoom ñëpp te ñu ñëw ñëpp jëf taa daanaka Balla sax xamu leen mais yërmande la ànd ak ñoom ak bëgg ak cofeel gu mu am ci xale yi kon yàlla na ko yàlla defal jàmm combat bi muy jub mu ëmmat seen que le ndax ñaari sénégalais la gis nga noonu bala Gaye ci biir xale yi fii nag lu ko bett tey golf waaye Omar tey lii ma sànce solu ma turki njaaree mu gone Modou Mbaw ko ñëw xale ba nga xam ne ma nga centre commercial bu PCCN numéro téléphone am 77 537 23 23 boo xoolee turki bi rek xam ne tey maa nga daaru salaam waa tey comme Médoune rek tey ilaa daaru salaam eh, Diouf tey ñaan rek yàlla def jàmm ci réew mi dem ci beneen daanaan wan leen ko ci anam yoo xam ne di ngeen ci dégg loolu ah Diouf yow Diouf ak